بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom ñu ngi koy bàkk di ko kañ di julli sëlmal ci ab yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sunu borom mu dëkkee dot ci waanu xéwal ci kaw yonent bi ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ beneen yoon ci doon keppaaru xam-xam ci doon keppaaru saxaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ngeen fàttalikoo ci suñu bind bi weesu ñu ngi nekkoon ci dund alsaxaabiyul jalil abdullahi ibni umar abdullah doomu omar ibn alxataab kon tey mooy ñaareelu bind bi ci dundu abdullah ibn omar ñu koy tàmbalee ci umniyatun gaaliya toxal nañ jële ci abi zanad nee na ñetti nit dañoo daje woon ci pegg kaaba ga orwa ak abdullah ibn zubair ak Abdullahi ibni Omar nee na ñoom ñett bi ñu dajee kenn ku ci nekk daal di wax na mébét na mébét lan la bëgg loolu nag boo jàng siiro salaf léeg-léeg day faral di am maanaam ñoom ñuy daje di def seen bopp ku nekk na wax lan nga gën a bëgg maanaam mu ngi mel ni kenn ku ñett ci ñun wala mbooloo ci ñun daje ku nekk di wax moom lan la gën a bëgg Abdullahi ibn Zubayr mu ni amma ana fa atamanna alxilaafa man moom damay mébét ma am li ñuy tuddee ak xilaafa xilaafa mooy jiite maanaam jiite jullit ñi Urwa mu ni amma ana fa atamanna an yuxada anni alilm mu ni man li may mébét mooy ma nekk borom xam-xam bu mag ba nit ñi di jël ci man xam-xam ah Mus'ab mu ni amma ana fa atamanna imrata al-Iraq wal jamaa bayna Aïchata binti Talha wa Sakinata binti al-Husayn mu ni man li may mbébét mooy ma dem ba nekk gouverneur Iraq te it am na ñaari soxna yoo xam ne day bu ma leen dencoon day moom dana baax ci man lool ndax jigéen ñu baax lañ muy Aïcha binti Talha ak Sakina doomu Husayn Abdullah ibn Umar mu ni amma ana fa atamanna al-maghfira mu ni man li may mbébét mooy na ma yàlla jéggal samay bàkkaar allahu akbar moo ne ñooñu daje ñëpp day ci ñu baax ñi lañ mbokk yi gaa yi daje yëpp ay gaa yu baax lañ amma Zubayr moo tax nettali bi imam Ibn al-Jawzi maa ngi koy nettali ci sifatu soppam mu ni fanaalu ma tamannaw wa laalla ibna Umar gufira lahu mu ne ñoom ñii ñëpp kenn ku ci nekk la nga bébétoon yàlla may na ko ndax Zubayr dem dafa nekk amir xam ngeen loolu moo juróon coowam loola ba ca lañ ko faatee ci jamonoy Hajjaaj am naa ki nga xam mooy Urwa moom mujj na nekk borom xam-xam bu mag ndax borom xam-xam yi xam nañ kan mooy Urwa am naa Mus'ab mujj na nekk amiru Iraq tey takk na soxna sida Aïcha bint Talha takk na tamit Sakinata bint al-Husayn kon dafa mel ni daje ba ba ñu dajee ñoom ñëpp ku nekk mbébét kenn ku nekk sa mbébét sotti na mu ni comme kenn ku nekk sa mbébét sotti na kon amaana ñu ngi yaakaar ne Abdullah ibn Umar mbébétam sotti na mooy sunu borom daal na koy bàkkaaram kon loolu moom daf leen doon yitteel lool lii day wane maanaam nit ñi ndekk ñu sori lañ ay bëgg-bëgg ñu sori lañ ay jubluwaay xirsuhu shadid ala maarifati kulli ma yudxilu yudxilu aljanna xir boo xam ne Abdullah ibn Umar daf ko xéroon ci bëgg xam lépp loo xam dafay tax nit dugg àjjana mbokk yi su fekkee ñii nga xam ne ay garantie yu bari am nañ ko ci mbir yi mën a tax ñu tàbbi àjjana day yemuñ ca loola waaye ñoom dañoo xéroon lool ci ay mbir yuy tax ñu mën a tàmbi àjjana bi maanaa ñun ni ñuy gëstoo ay projet yu tax suñu àddina jag ñoom noonu lañ doon gëstoo ay projet yu tax seen àllaaxira jag ah nettali bii may bëgg a nettali firnde la bu lay wan ne Abdullah ibn Omar daf doon jeexaat àjjana dëgg Anas ibn Malik nee na benn bis dañoo toogoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi jekki-jekki ba mu yàgg mu ni xool leen côté bi mu ni am na kuy ñëw kooku di ñëw bu yegsee ci waa àjjana lay bokk allahu akbar saxaaba yi ñoom ñëpp ñu wëlbatiku di xool wet gi yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ñu jékki-jékki gis benn waay bu yegsi boo xam ni sikkim baa ngi siit ak ndox mi ngi jël dàll yi summi ko téye ko loxo càmmoñam nee na mu daal di yegsi toog mu ni ca ëllëgaat sa ñu toogaat ba même waxtu bi yonent bi ne gesu leen ngeen xool benn waaye ngi ñëw boo xam ci waa àjjana lay bokk ñu gesooti di xool même waa ji moo yegg si waat ci ñetteelu fan ba yonent bi alei salaam mu ni gesu leen ngeen xool am na waa juy ñëw ci waa àjjana la bokk ñu gesuwaat même waa ji di ñëw muy ñetti yoon yoo xam dafa tegaloo ah nee na bi loolu amee Abdullah ibn Omar daal di koy topp bi nga xamante ni topp na ko am na riwaay boo xam dafa wax Abdullah ibn Amr ibn al-As am riwaay boo xam dafa wax Abdullah ibn Omar riwaay Bayhaqi moo nekk ne Abdullah ibn Omar la mu daal di koy topp bi mu ko toppee mu xalaat xalaat nan la mën a def ba jokkoog waa ji ndax wiinu ko mu ni xaaral ma tër am pexe pexe mi mooy mu ni ko ma ne dama am jafe-jafe suñ kër daal lu ma séq ak saa baay te xam naa ne fii ak ñetti fan moom góoma yi danaa mën a nekk ci kër ga est ce que doo ma mën a làq sa kër ñetti fan ba ma lijjanti loolu waa ji mun ko loolu daa ma solo nan dem fekk booba nag koo bëgg a yëgg si pour xool nan lay jaamoo yàlla ba tax yonente bi wax ci moom lii nga xamante ni moom mooy dana dem ajana nee na ma dem ci kër waa ji ñetti fan yi lëmm yoo xam ne daa mujj sax dama ko commencé xeeb sax nee na waa ji dama ko commencé xeeb ndax waa ji gisuma ko muy wër ba ci waa ji gisuma ko muy naafila guddi waa ji man daal benn jaamu yàlla bu ma yéemu ci moom boo xam ne man néew ci man sax gisuma ko ci waa ji man daal seetlu naa ne ci guddi gi moom waxtu bu mu jógee ma di ko bàyyi xel fekk defe ne maa ngi nelaw ndeke maa ngi nelaw nelaw loolu mooy mag muy xool lu ko ñor nit ñaa ngi nelaw mu ni maa ngi nelaw nelaw seetlu naa daal bu jógee dana tudd yàlla subhanahu wa taala bu tuddee yàlla ba noppi seetlu naa ne day continuer ba fajar jot nee na daal ñetti fan yi daal xeet naa ay jaamu yàlla waaye li ma gën a marqué ci moom mooy du wax ci jàmbur dara moom doo ko dégg mukk mu tudd kenn di wax lu bon bi maanaa du jëw du ñaaw njor du fen du waxal bokkut maanaam daal benn carte buy ayibal bokkum jullitam du ma ko dégg ci moom loolu daal laa mën a xam ni bu ma doon def conclusion moom laa seetlu ci moom nee na ba ñetti fan yi matee ma ni ko saawaay gis nga dara xewut am pexe rek laa tëroon dama bëgg nga wax ma yow yaay kan est ce que xam nga dañoo toog ñetti fan yoo xam ne yonent bi dafa tegale benn bu ci nekk mu ni benn waaye ngi ñëw buy tàbbi àjjana te yow la nee na ma ñëwoon ci sa kër pour di la yëddu ngir xool ana yan jaamu yàlla nga def yu mag te gisuma benn jaamu yàlla bu ma yéem nee na bi loolu amee nee na ah man dama daal di am jaaxle ci yow waaye li ma seetlu daal mooy seetlu naa ni yow moom doo wax ci kenn da ngaa jàmbure sa mor sa jàmbur nga jàpp mu ne ko maa huwa illa ma raayta ah li nga fi gis doom laa fi am ci jaamu yàlla nëbbatuuma la de gayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin min almuminina gishan wala axsudu ahadan ala xayrin aataahu llah mu ne man daal xam naa ni du ma jëw kenn du ma fen kenn du ma añaane kenn xéewal bu ko suñu borom jox te du ma war kenn man daal amul benn gàkk gàkk bu ne sama xol ma di ko dencal sama mbokkum julit nee na bi loolu amee Abdullah ibn Umar ni ko ah kon ndekete lii ci nga amee ajana te lii mooy lintale ñun ñëpp bu dee Abdullah ibn Umar moo ni lii moom lintale ñun ñëpp nun moom lu nu war a wax xanaa ñaan yàlla rek subhanahu wa taala mu jàmmal infaquhu fi sabilillahi radiyallahu anhu naka la Abdullah ibn Umar doon génnee alalam di ko dépassé ci yoonu yàlla lu jafee boobu bokk alal alal ak sidit la gis nga alal ak silit la gu ni patt ci sa xol bi silit gi gën a naqaree dagg te gën a metti dagg mooy silit gi jàpp ci xol te alal ak doom moo tax ba fitna ñëwee suñu borom daal innama amwaalukum wa awlaadukum fitna alal ji doom yi gis nga nit ki pour mu góor góorlu ba am maîtrise ci alalam def ca la ci yàlla bëgg mu am maîtrise ci njabootam ba yar leen na yàlla gërëmee lu jafe la alal nag ñoom ndeysaan teguñ ko woon fenn ndax xam nañ ni puurit la puuke la puuke defe naa xam ngeen puuke naa gars yi xamuñu puuke boo demee ca àll ba bu tawee ba baawaan ba walangaan taw biy daw di walangaan léeg-léeg mu jaar ci xur wi léeg-léeg mu jaar ci yoonu ndox wi da ngay seen ndox mi dana gur gur di dem bay fuur fuurit googal lu mu romb ci salte mbuus yeeg géej yeeg lu mu romb rek da koy buub yóbbaale bu ko defee day dem ba agsi ci ñag wala ci miir xam nga kon dootul mën a demati mu baarewu foofa nga seen ko muy fuur mel ni póoti loolu la ñuy tuddee puuke moom la suñu borom di wax ci alquran ne àddina de puuke kese la gis nga loola boo ci tibboon sa sa paan doxal tuuti mu seey doo am dara ci ndox noonu la àddina mel abdullah ibnu amar mbokk yi alal ci boppam agguloon fenn ci xolam loo xam ne ñun kenn ku ci nekk ku foor ku kawe nga ko teg waaye moom alal yegguloon fenn ci biir xolam la tax mooy ngëm-ngëm boo xam ne xamoon na ne alal ndénkaan la boo xam ne am naa xaribin nga daal di dellu fa sa borom bàyyi ko yërëntalu na torop ndeysaan bi ngay ñëw andi woo dara da ngaa banque say loxo di niroog ku andi dara biñ ko ñibbar ñee gis ni yoroo tus moo tax gis nga bi ngay dem da ngay sérieux da ngay taal lépp amul dem di banque dee moom di banque say loxo nii déedéet bi ngay ñëw kay nii ngay def di nuróob ku yor dara buñ ko léparñee gis ñu gisuñu dara waaye booy dem day tàll ñeneen day sàll doo yóbbu dara fama taxannata fama fama tazawada mimma kaana yamlikuhu mu ne waa ji yërëntul nag dem lool yóbbaalewut dara ci lim fi amoon ci àddina ah si waa xanootuñ lu dul gët gañ ko defal cay waxtaaram ak cëram ak perkaal ba nga xam ne lañ ko sàngee abdullah ibnu amar mbokk yi saa bu mu saara jàng alquran jàng aaya juy soññe ci joxe ci yoonu yàlla dafay mel ni loolu daf koy gën a soññ yii nag buñ koy wax toujours seytaane bu mu ñëw ci sa xel mukk ah lii dafay na saxaaba ya la woon wallahi am na ñu mel nii ila yawmina hada am na ñu mel nii ba tey am na ñoo xam ni ba tey seen alal ñi ngi koy impact yamnatan wa yasratan te li may wax xam naa ko bu baax am na ñoo xam ni ba tey seen alal ñi ngi mel ni saxaaba yi ci di ko dépensé fii yoonu suñu borom naafia nee na abdullah ibnu amar day maa ngi yaakaar ni ku toogoon di wàññi ñaata jaam la jënd goreel leen mat nañ junni balaa moo faat junni jaam mille jaam subhaana rabbina al aala junni jaam mbokk yi fan juróomi téeméeri jaam juróom benni téeméeri jaam ab julit bu gëm yàlla nga goreel ko mu nekkub jaam mu nekkub gor am liberté am di jaamu yàlla nga xam ni jaamu gu mu jaamu am nga ca pourcentage nga am sa junni déglu leen lan moo ko sensibilisé woon ci loolu abdullah ibne omar amaana dafa déggoon waxi yonent bi sasal abi hurayra mu ni yonent bi nee na man aataqa raqabatan muslimatan aataqa allahu lahu bi kulli udwin minha udwan min annar hatta farjahu bi farjihi yonent yàlla bene soo fekkee ku gëm yàlla ku nekkub jaam nga goreel ko te yàlla tax bépp cër bu nekk ca moom yàlla day natt cër ba tolloog moom ci yow goreel ko ci safara ñu ni loxom day jooram ñu ni yow sa loxom day joor mucc na ci sawara loxom càmmoñam yow sa loxom càmmoñ mucc na ci sawara tànk day jooram sa tànk day joor mucc na ci sawara cër boo lim mu ni ba ca pëy ma sax boo ko limee nga limaale sa koy yàlla muccal musatul safara allahu akbar amaana kenn nag mën a nii tey bu bëggoon goreel jaam nooy def gis nga goreel jaam même bu amatul am na bu ko dab dabal sa mbokkum jullit mu gëm yàlla moo xam ne mi ngi yore bor tëjum kaso taxaw suba boo ko andiwul dañ leen a ràpp ci kaso bi nga yëkkati loolu fayal insha allahu dana ko dab bu tollawut ak moom dana ko dab sa mbokk moo xam ne mi ngi am ay jafeñ-jafeñ nga xëttali ko ci jafe-jafe yooye ci wàllu alal nga xam ni bakkanam wala ak dundam wala toroxtaangeem wala gàccaam mën na caa feeñ léeg-léeg am foo xëttali sa mbokkum julit foo xam ne boo ko fee xëttaliwul rek làmbaay ñaaw yooye da cay topp insha allah abinu jayx assuleymi nee na aw assulami nee na yonent bi nee na képp ku goreel ab jaam bu jullit yàlla day jël bépp yax bu sax ca jaam ba jël yax ba tolloog moom fa yow goreel ko ci sawara bépp jullit bu jigéen bu goreel mbokkum jaamam bu jigéen sunu borom day seet yi la tolloog moom ca yax sunu borom goreel ko fi yow ci sawara ca yowmal qiyaama kon loolu lu rëy rëy rëy la mbokk yi kon nit ki war nay góorgóorlu ba lii mu fexe cee am su dee ko am ay jaam mu goreel jaam bu amul jaam mu deema tante yii nga xamante ni tey ah nit ki mën na ci am tiyaaba ah koo xamante ni xëy na jullit la buy góorgóorlu kocc koccel yurub dara lu dul jeex parce que nag courant dikkal ko ñu nar koo coupé ngir loola ndox kazalik ñu nar koo coupé ngir loola dafa luye ñu nar koo génne ngir loola ah dafa amee bor ñu nar koo tëj ngir limal yooyu yëpp nga xam ne xeeti jàq-jàq la yoo xam ne da koy jàq yéen si yàlla bi nee na man naffasa an muminin kurbatan min kurabi dunia képp ku xettali sa mbokkum ngir tiis mu nekk ci tiisi àddina yi sunu borom dana la xettali ci tiis mu ko gën a màgg ci tiisi àllaaxira yi te jafe naa foofu nga koy gën a soxla ndax yi am nga ko te foofu doo ko am Muhammad ibni Zayd nee na ibnu Amar dafa amoon benn jaam ni ko kaay ñu bindante ngir nga gore façon boobu da doon am kaay ñu bindante mooy lan mooy waa ji bu nekkee sa jaam da nga naan ko bis boo ma andilee téeméeri junne ak juróom fukk misaal laa joxe téeméeri junne ak juróom fukk ma goreel la su ko defee waa ji mu jël ak dàmba dugg ci marché bi di liggéey chaque jour mu lay verse mu mate téeméeri junne mu dem wa illaa nga jëmbat ay garab ni ko garab yi yëpp boo ko roosee ba ñu màgg ba dëgër goreel naa la maanaam benn façon pen nga koy teg bu ko defee bu ca farloo rek nga goreel Abdullah ibn Omar dafa jëloon benn jaamam ni ko soo defee nangam soo ma joxee arbaina alfan muy ñeen fukki junni ma goreel la ci misaal waa ji génn mu ni kon may nga ma ndigal wóor nga ma dem kuufa liggéey mu ni ko am ni ko demal waa ji génn dem kuufa liggéey nee na mu nekk ndeysaan di liggéey di sonn di joxe ba joxe fukki junni ak juróom nee na benn bis benn waaye fekk ko fa mu nekk mu ne ko yow yow yow yaay seer dëgg dëgg dëgg yow Abdullah ibn Omar mi ngi nii di jël jaami jàmbur yi di leen jënd di leen goreel demal ne ko mënuma lii mu goreel la mu jeex nga nekk fii di sonnal sa bopp waaje moom it mu dégg ndigal lool ni ko ñëpp liggéey ba dem ci Abdullah ibn Omar bi mu yegsee ci Abdullah ibn Omar ni ko dëgg dëgg nag fooy wañ bindante woon mi ngi nii liggéey naa ba sonn yëf yi daa jafe léegi seetal naa leen boo ma dee baal nga baal ma noo xam nga def Abdullah ibn Omar ni ko effacé ko sa bopp kon waa ji jël daal di effacé fooy wiñ bindante woon mu ne ko kon goreel naa la ngir yàlla waaye ni ko waaye sama yaay sama yaay ci kër gi la nekk da ci jaam yi la bokk mu ne ko goreel naa ko ngir yàlla mu ne ah wax dëgg yàlla rus naa ñaan lool waaye benn ma des sama ñaari doom yi des ci kër gi mu ne ko goreel naa leen ngir yàlla mu génn kër ga moom yaayam ñaari doom léegi moom fukki junne juróomam yi da jar na dëgg nag wax dëgg yàlla waaye nag ka ko fekk foofa ni ko seer nga tamit arrangé na ko lool gis nga loolu da lay wan ni ñoom dañoo xamante woon ci seen biir mu goreel ko mu ne ko ñoom ñaar sama yaay mu ne ko goreel sama ñaari doom yi mu ne ko maa xurratan ñoom ñëpp goreel naa leen loolu al cheikh Shuaib al Arnaoud wéral na ko te imam Zahabi mu koy nitam ci seeru alami nubala Muhammad wala Asim ibn Muhammad al Amari nee na jëlee na ci baayam mu ni Abdullah ibn Jaafar ah dafa joxoon Abdullah ibn Omar ci Nafia wala daf ko jëndee woon fukki asharata alaaf daanaka fukki junni su ñëwee fukki junni nag bul gam-gam sa CFA bi nam na ko gën a bari ah Abdullah ibn Omar dugg ci soxnaam Safiya daal di waxtaan ak moom ni ko ah kii de li nu fay ci moom rëy na lool jaam bu ñu xam ni fay nañ ci nangam xam ngeen daa fee bëgg ne jaam noonu bu ko jege mu daal ne sunu borom nee na lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen àgg ca njombaxtalu yiw lu dul li ngeen gën a bëgg na ngeen koo dépensé léegi soxlaatuma xaalis bi naa fi amu ne naam mu ne goreel naa la ngir yàlla naa fi nag am ngor bu day ni ko déwuma fenn fii laay toog di la jàppale lii ma bàyyi woon naa fi kër Abdoulaye Mama te xam nga loolu danañ am nag defe naa yéen a ngi fàttali ànd ak man Muhammad ibn Sabah moo fi nekk li woon ah nga xam dafa amoon jaam bu jigéen benn bis mu am aaja jaay ko mu jaay jaam ba nekk jaam bi jullikatu guddi la woon kër Muhammad ibn Sabah mu bàyyi ba trois heures du matin mu jug topp néeg yi ku nekk muy fëgg waaye yéen da ngeen dul ju- julli tey borom kër gi ni ko jullig lan fajar jotagut mu ni ko xaadu ngeen naafi la mu ne ah ñun de farata rek fajar fuuy rek mu samp xel wi ñëw kër Muhammad ibn Salah Muhammad laaj ko lu xew mu bën bënn bëtam di jooy mu ne ko lu xew mu ne ko man de lijjantiwuma loo ma jaayee démb waaye xam naa ne loo ma mënta jaayee njër dëgg jaru ko ndax ñi ngi ma jaay ñoom duñu ay jullikati guddi ndeysaan Muhammad ibn Salah jooy daa ne ko ñëwal ñu ànd ñu ànd ba comme ko jaayee woon delloo leen njëg gi delloo si ndaw si ci kër gi mu ne ko man fii laa mën a nekk lu bare bare bare ci borom xam-xam yi daa nga jël jaam nga goreel ko mu wëlbatiku daal di continuer nekk sab jaam nettali woon naa leen waaje nga xam ne dafa tëddoon ah di nelaw wala muy nelaw nelaw lu jaam bi sujjóot di bàkk yàlla ba naan yow sunu borom ci ci ci mbaa ci bëgg gi nga ci bëgg gi nga ma bëgg laa bëgg nga yërëm ma waa ji daan dig ne ko yow kay da ngaa wax ci bëgg gi nga bëgg yàlla ndax yow xool ni nga bëggee yàlla bay julli mu ne ko déedéet yàlla moo ma bëgg ndax moo la tëral ngay nelaw mu dimbali ma man ma jug di julli kon moo ma bëgg mu ne ko yow doo jaam ak neen goreel naa la demal mu ne ko déw ma lu tax déw dem mu ne borom xam-xam bu doy ni yow toog ci sa kër di la liggéeyal nga ma bëgg a xañ ci yaa bay maa lànk du ma dem fii laay toog du ma génn kër gi gis nga ñooñu kon buntu wutukaay yiw dañ koo xamoon lool du ko defee naafia daal di ndeysaan jege abdullah ibn omar naafia nee na ibn omar saa bu musaana xool benn jaam gis ni kii kat ku mën a jaamu yàlla la rek mu ko rew ah jaay jaam yi commencé sa way gars yi di wóor wóori sunnaat ah di dem jàkka jaay ah comme loolu mooy tax ñu ko rewaate ngay kenn ku ci nekk da nga def la nga ca man benn waay ñëw ni ko gis nga abdullah ibn omar sa mbaax mbaax lu gii ngay def jaam boo gis muy góorgóorlu ci jaamu yàlla nga goreel ko soo ko bàyyiwul sa jaam yépp ay jeex yow ñii dañ lay nax rek ñii dañ lay nax mu ne ko fa man xadaana billahi in xadaana bihi ku ma nax ci yàlla ma nangu na ma nangoo naxu ma it ku ma nax même bu ma wéri ni jaam yi dañ lay nax bu dee ci yàlla dañ may naxee ma nangoo naxu allahu akbar xam nga loolu day xirtal nit ki ci jaamu yàlla nga gis benn jaam boo xam ne woor ko sunna la day dem jàkka ja bu la Abdullah ibn Umar gisee nga nekk jàmbaar ci jaamu yàlla rek mu wala ba nga ñëw mun la jëlal say dëbës libéré naa la goreel naa la kon li mu goreel dafa bari torop bu fekkee benn jaam lañ ni boo ko goreelee ñu goreel la ci sawara boo amee junni jaam moom foo jëm gis nga moo tax mu ni Salim nee na Abdullah ibn Umar musuma koo dégg mu wax wax ju ñaaw mukk ci jaam rëbb yàlla na nga de yow yàlla na nga dee comme wax yooyu mu ne musuma koo dégg lu dul benn yoon te bis ba mu ko waxee keroog la goreel jàmb ni ko génnal ko ji yu garaaw a boobu ñun ñu ko feral di def yàlla na nga dee yàlla na nga toskare ya di gën a garaaw nag mooy yaay di ko wax doomam yonente bi salaa sallam ànd naag saxaaba bi yàgg mu dégg benn waaye bu ni sama gileem gi kii yàlla na dee rek gileem gu bonee nii yonente bi ni ko wax loolu mu ne man mu ne ko génnal mbooloom yàq gileem ñun kay gileem bu ñuy rëbb moom duñu topp génnal waa ji daal di génn kii leen yooyu garaaw na mbokk yi yàlla na nga dee yàlla na nga yow yàlla na nga xalku yooyu kenn du ko kafe mbokk yi ndax amaan na ngay wax mu tombeeg nangu malaaka rek amin ni malaaka rek sëñ bi yëf yi daal di jàll yaay moom wala bàyyi buñ koy wax doom muy jàll léegi da ngay gis ndeysaan koo xam ni daa yàqule fekk yaay ma ko yàqal wala bàyyi yow xaw ma lu ma leen doon juree yàlla na nga dee yow ni nga tàngalee sama xol bi yàlla na yàlla tàngalee noonu sax loolu kenn du ko wax dee yéen ta sax nee loo mer mer mer mel bu rëbb sa doom ndax booy rëbb rek muy dal bu ko defee ngay rëbb yàqal sa doom ëllëg di si biir nga réccuwaat moo tax yooyu kenn du ko kafe Abdullah ibn Omar benn bis dafa feebar ba wér bi mu wéree xelam dem ci raisin mu yónni soxnaam ni ko demal nga jàppale ko soxna soosu nag soxna su ko doon jàppale la ci jaamu yàlla ah muy safiya gis nga góor lu mu jàmbaare jàmbaare jàmbaare bu soxnaam jàmbaare rek jàmbarte ko day gën a kawe est-ce que xam nga ni góor dana xeeb ay moroomi góoram xam ngeen lu koy waral soxna su baax gis nga soxna su baax mën naa yeggale jaamukatu yàlla fu kawe wolof yi nee nañ góor dina xeeb moroomi nawleem ba yab leen te fekk lam leen xeebee yabee leen ko nekkul ca ñoom waaye soxnaa ma baax maanaam soxna su baax day dem ba yow da nga yaakaar ni say morom ñu ñàkk fayda la ñu nag fekk dee ñàkkuñ fayda de yàlla moo la ràccal la téye ko ko yow soxna su baax day waral nit yàpp ay nawle loolu la olof yi lépp lu wéral boobu surtout ku lay jàppale ci jaamu yàlla soxna su jàmbaaree doon ko jàppale ci jaamu yàlla ndax xam xam nga ni ba mu nee ko jaam bi nu ñuy def jël alal ji mbaa goreel ko mu ni ko lan tanalul birra hatta tudma mu ni ko nan ko joxe loolu soxna suy jàppale borom këram ci jaamu yàlla gis nga am na góor ñoo xam ne nag suñu borom defal na leen tawfiq la leen sax ci jigéen mooy jaamu yàlla loolu am na de am na ba tey am na góor goo xam ne jigéen ju mel nii moo ko sax am na góor goo xam ne jigéen ju mel nee moo ko sax am na góor goo xam ne jigéen ju mel nee moo ko sax yàlla sàkk na ay góor yoo xam ne ba tey ñu ngi am jigéeni jaamu yàlla jaamukatu yàlla la sax maanaam jigéen ji lim mën a am ci ay résultat ci góorgóorlu ci jaamu yàlla ci borom këram mënu koo am ci leneen ah wax dëgg yàlla am yàlla amaale sa borom kër xanaa loolu mooy am ci yaaba am tuyu yóbbaale daal di jariñ kon nit ki damay góorgóorlu am yàlla ba noppi am ngërëmal borom këram si jaamu yàlla ci ma al asaf shadid wallahi tey bay bari na góor ñoo xam ne dañoo dañoo tardé fekk seen soxnaa yéex yéexal leen tardé waal leen waaye am na ñoo xam ne seen i soxna dañ leen di soññ ci jaamu yàlla comme ñii ngay dégg seen i borom xam-xam seen i seen i soxna doon leen ko def te loolu boo jàngee seen salaf gis ci daanaka lu baree bari gis ngeen ko ci dundu Abu Darda gis ngeen ko ci dundu Abu Darrin ak yeneen ak yeneen yu yi passé nee na ñu jënd raisin fekk benn waay bu xiif ndeysaan ba sonn mi ngi seen ñuy jënd raisin mu daay topp ki jënd raisin ba mu duggee ci kër ga mu ne dama yelwaan raisin ndeysaan Abdoulaye ibn Awar mu ne joxal leen ma ñu jox ko soxna si dem lijjanti waat dem jëndi waat raisin waa ja moom it nekk koo xam ne xam naa amut xel dara moom it mu xamaa daa xiif na mu toppaat ko ñëw ba ci buntu kër gi dama yelwaan raisin Abdoulaye Mahamad ni joxal leen moom ñetteel bi yoon ba ndaw si ni ko gis nga boo ma toppee ba kër ga même boo yalwaanee raisin kenn du la ko sarax waa ja doog a tourné ñu bi xoolal xoolal xoolal mbokk yi ku feebar nga xam ne da ngaa aajowoo li waa ji ñëw na benn yoon kay jox nañ ko yaa xëy kay mu dem yoonam moom it amaana daa xiifoon nag moom it waaye mu jox te xam naa ni bu ndaw si dànkaa bul woon noonu waa ji dana dellu si waatee mu dellu si waatee mu jox ko bu doon noonu nag fii ca bis bu njëkk yoonu bu njëkk ba sax lan la ko dul jox nag ba delloo jox ñaareelu ñaareelu yoon ba Naafi nee na Ibnu Omar léeg-léeg daana toog ci benn jataay ay nit di ko fekk foofu di sàkk ci moom ndimbal may wàññi ba wir ma ni fanweeri junni maye na ko ci jataay bi mu toog fanweeri junni maye na ko ci jataay bi mu toog allahu akbar daa nangu woon a liggéey nag xam naa kenn ci dina xalaat jaamukatu yàlla mel da doon liggéey de gis nga salafu saalih ay liggéeykat dañ woon de Abdullah ibnu Omar danañ dem ca marché ba di liggéey ngab ay dam dam dambaam di liggéey jël ay ay ay gileemam wala ay nagam yar leen ba ñu duuf defe naa yéen a ngi fàttaliku ba mu jëlee gileem ya dugal ko ca biir càmm ak jullit ña ba jullit affaire ya duuf lool Omar ñëw ca marché ba daa di fekk juróomi gileem yu taxaw mu ni waa ku moom gileem yi ñu ni ko sa doom Abdullah ibn Umar mu ne ah man damaa waaroo waay man kañ la fi sa doom am ponkali gileem yu toll nii baxin baxin wol leen ma ko waay mu ñëw mu ne ko Abdullah koo jëlee lii mu ne ko juróomi gileem yi dama ko jëndoon ñu yooyu moom di ko boole càmm ak jullit ñi mu ne aha nga jënd sa alal di ko dugal ci alalu jullit ñi ngir jullit ñi di ko sàmm naan sa bàyyee amirul muminin eh kaay benn waay ñëw mu ne ko jëlal gileem yi nga dem jaayal ma ko ca marché ba waa ji dem ca marché ba jaay gileem yi ba mu jeex mu ne Abdoulaye ibn Omar loo ko jëndee woon mu ne nangam laa ko jël mu génn lam ko jëndee jox ko ni ko demal am nga bénéfice defe naa dégg ngeen wax ji maanaam léegi lan lan lan ko duufal lépp comme ci alal te loolu alal julli bi sax parce que càmmeeb gi la rek xëy na lañ ko ca boole kay moo warul woon rek waaye mu daal di koy jaayee lu cher génn lañ ko jëndee woon jox ko ni ko loolu mooy sa bénéfice demal comme loolu rek firnde laa ci doon jël pour wan ne ne yaxantukat la woon yaxantu mooy ko nangoo liggéey Abdullah ibn Omar Naafi nee na daana toog lu mat ay weer yoo xam ni morso yàpp du ko lekk loolu nag boo ko waxee ñun dañuy jaaxal waaye ñoom ci seen jamono maanaam ñun waruñoo jaaxal ñoom la doon jaaxal ci seen jamono xam nga lu tax maanaam ñoom dañoo bari woonu jur ba lekk yàpp nit daaw toog ñetti fan yoo lekkul yàpp loolu moom doo ko def loolu nag boo ko gisee seen dund mooy ak jur do loolu moo nekkoon seen seen i jën ak seen i yi ngay gis ñu yomb ñu ñun maanaam toog ñetti fan te lekk ko yàpp lu waay faqir faqir faqir mën nga ko kon bu ñee la toog na weer lekkul yàpp loolu war na la jaaxal ci jamono jooja nga xam ni Abdullah ibn Omar tuqaraa yi dañoo demoon ba xam loolu ci moom ndeysaan léeg-léeg bu musaana génn rek da ngay gis nit ñi di ko topp mel ni ay yemb ngir xam ni rek kum xool gis sa bët xonq rek ndeysaan dana la jéem a dimbale Hamzat ibn Abdullah nee na man de xam naa ni Abdullah ibn Omar ku ko tegaloon booli bi lekk lu booli bi rëy rëy rëy rëy rëy mu tiim ko du mën a suur lu tax du mën a suur mooy balaa am jàmm rek daa woo mbokk jullit ñu bokk koog moom benn bis ibni mutuya ibni mutuya ab amir la woon mu daal di koy seet si ndeysaan fekk abdullah ibn omar mi ngi yooy lool yooy xam ngeen yooy ndeysaan jeex ñu ne dañoo jàpp ne maanaam jullit moom warut a jeex rek daa war a foo ko fekk rek mu ngay lekk ba nekk am tux ah mu ne ko waa abdullah ibn omar da ngaa feebara mu ne ko feebaruma de man de man na maa toog juróom ñetti at yoo xam ni xanaa benn yoon mbaa ñaari yoon ba ñetti yoon laa ci fàttaliku yoo xam ne mas naa suur li ci des yëpp dinaa lekk waaye duma suur mu ni ko ah yow xéewal yi la yàlla defal doo lekk góorgóorlu nga defal sa yaram wi mu ni ko waaw waaw wax nga dëgg de yaram woo xam ne dund naa dund dund dund ba li ko dese melul ni li des ci dundug mbaam ma di ko yafal di ko dajeeg yàlla lu tax ñu naan ci dundug mbaam borom xanaa dañuy wax ni maanaam rab yépp mbaama ci gën a mën a mbaama ci gën a yées nu muy muñee ab aw mar maanaam rab yi niñ mënee muñ mar gileem xar nag fas niñ mënee muñ mar mbaam mënu ko muñee muñ ngol moo tax mbaam dañ naan buy mar di dee mu ne ah ma dem ba dara desul lu dul sama dund gi mel ni mbaam mu mar di waaj a dee nga naa ma yafalal sa yaram bi dee taluma ko Hisham ibn Yahya al-Ghassani nee na jëlee na ci bàyyam mu ni benn waay dafa ñëw ci ibnu omar di yalwaan ibnu omar wax doom ji ni ko joxal ma ko benn diinaar mu jox ko benn diinaar doom ji daal dikk ni ko ah bàyyi de lii de maa ngi yaakaar yàlla nangul la ko mu ni ko gis nga su ma xamoon ni yàlla nangul na ma benn sujjóot wala benn sarax mu ni gan gi ma gën a yàkkamti mu gane ma keroog mooy malaakal mawti ma dee ñu ne ha mu ne waaw mu ne ko xam nga lan mooy yàlla nangul la mu ne innama yataqabbalu llahu min almuttaqin yàlla ña muy tàbbal àjjana mooy ña ko ragal te nee na ñi muy nangul mooy ñi ko ragal ayub ibni wail arrasibi ah nettali na nee na abdullahi ibni omar benn bis benn waay daf koo andil ah ñeenti junni dirham muy xaalis bari ca seen xaalis daal di koy ëmb ci benn yére nee na ma gis Abdullah ibnu Amar di ko séddale di ko séddale di ko séddale ba mu jeex tat ma ni haa kii de kii maanu yàlla la mu ni ca suba sa may doxantu ci marché bi seen ko mu dem ca jaaykat yi di leb lu mu dundalee juróom bi nee na ma daal dem këram ni leen waaw yéen xanaa ne ki ma gisoon démb muy séddale du Abdullah ibnu Amar ñu ne ko ohon kay waa mu ni man dama koo fekk muy leb lu jur gi dundee ñu ni moom de nii lay def lu ko xéewal dikkal da koy séddale ba mu jeex tàkk du sédd sax boppam ndeysaan allahu akbar yooyu mbokk yi boo ko dee xool da ngay xam ne ñii addina dara liñ ci safar woon ibni wail nee na ma daal di génn nag jël sa loxo yi mooy comme nit ñi muy def rek bu jaaxlee dóor loxo bi ca ba ca des dem ba ca marché ba seet montagne wa gën a gudd mu yéeg yuuxu mu ni eh yéen commerçant yi daw si leen ma wax leen lu leen di jariñ gaa yi fëx xam nga commerçant day yaakaar ne xam naa conteneur bu doog a wàcc la gaa yi fëx ñëw fekk si ko mu ni waaw ma tasnauna bi dunia yéen seen xëy mi ngeen di xëy di liggéey ci marché bi lu mu leen di jariñ Abdullah ibnu Amar day ay junni junni junni junni lay am ba noppi sarxe ko xëy di leb yéen nag seen junni yi ngeen bari ne du ngeen ko saraxe xaw ma lu mu leen di jariñ wasalaam daal di wàcc leen yoon loolu loolu yaa xeeb discours bi waaye discours la bu jàll nag dugg na de kii bu doon bal la dugg na fañ ko doon dóor moom xam na li mu wax waaye ñam ko doon waxal xam na li mu leen di wax zubduhu wa waraahu radiallahu anhu nan la abdullah ibnu amar dëddoo woon àddina ak nan la fegoo woon jàpp naa ni mbokk yi jaabir ibni abdillah xoolal jaabir ndeysaan jaabir ci waa àjjana jaabirum àjjana laay wax de jaabir ibni abdillah mu àjjana dafa naa xam ngeen loolu jaabir ibni abdillah laa wax mu àjjana jàpp naa ni kooka du waxam de ci magi saxaaba ya jaabir ci magi saxaaba ya la bokk ci waa àjjana la bokk jaabir ibni abdillah te waa àjjana man la jaabir ibni abdillah mu àjjana nee na allahu akbar ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مال بها أو مالت به إلا عبد الله بن عمر سبحان الملك الملك والملكوت jaabir ibn abdillah mu waa àjjana nee na yéen ñii ñëpp laay waxal amul kenn ci ñun lu dul bëmaxu na daanu ci kaw adina wala adina daanu ci kawam ba mu des abdullah ibn omar subhanallah alazim magi saxaaba yaa nga fa ponkal yaa xool xoolal ab jaabir ibn abdillah mag abdullah ibn omar bi moo ramu bàyyam ba noppi di ko séeréel séeré yi ah xam na magi magam nga sax dina wut woon noonu loolu waaye moo ko mag ndeysaan mu séeréel ko loolu ibn sirin nee na benn waaye daa ñëw ci abdullah ibn omar ni ko dama lay defaral li ñuy tuddee jawaaris mu ne ko luy jawaaris ci kër àddina mu ne ko benn xeetu lekk la boo xam ni maanaam genre désert la désert boo xam ni boo lekkee ba pare bu fekkee li nga lekk daa bari comme ñun li ñuy def rek boo lekkee dinaan gazelle ak lu ne nga dugg ci pour mu rees maanaam mu ne ko boo lekkee ba noppi bu lekk ci baree sa biir boo ko lekkee dafay reesal abdullah ibn omar ni ko man de yàlla xam na ne dinaa toog ñeenti weer yoo xam ne du ma ci suur kon lu may doyee jawaaris muy reesalaate lan moo tax ngay def loolu mu ne man de damaa fàttali ko ay gaay te ñu àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg dañ daan xiif léeg-léeg ñuy suur ma jàpp ni ñooñee seen dund googu rek mooy li baax abdullah ibn masaud ci waa ajana abdullah ibn masud laa mu àjjana daf la yonent bi ne woon yéeli abdullah ibn masud yu sew yii de moo gën a diis montagne xor fa yàlla abdullah ibn masud mu àjjana nee na إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر ci gën a sàmm ci jeune jeunes yi nekk ci biir Quraysh mooy Abdullah ibn Umar jàpp naan yii seede te Abdullah ibn Mas'ud xam ngeen bokku loon sa gone te mag ña la bokkoon ndax moom ak abdullah ibn abbas fuuf ñëkk koo faat kon yii mbokk yi ay seedale yoo xam yu rëy rëy rëy la yoo xam ne ñoom sax bëgguñu woon sax ku koy wax ci seen kanam maanaam ñoom seeni mbaax mbaax daawul bëgg nga di ko wax lii nag dawee woon kon abdullah ibn amar gone la woon du woon mag de te loolu dinañ ko bàyyi xel maanaam léeg-léeg bu ñuy wax saxaaba yi xam nga ñun dëgg dañoo orma saxaaba yi orma jaa tax ku ñuy wax rek ñoom ñëpp la ñuy boole ci benn kàmm waaye yëgal na abdullah ibn amar ci gone yi la bokkoon jaabir sa gone yi la naam kii nu mu tuddati ahmad ibn amir sa gone yàlla rabi ibn xiddi sa gone yàlla abu saïd al xudri sa gone yàlla maanaam ñu bëri ci ay fonkali saxaaba yi boo leen lim sa gone yàlla moo tax alimam zahabi boo demee ci siyar wala nga dem ca sifatu safwa ba ñu ubbee saxaaba yi ba noppi dañuy ubbi benn bunt tuddee ko sigaaru saxaaba gone saxaaba ya lim ci ña nga xam ne ñoo nekkoon ay gone ànd ak ñëpp nag moom fa kullan waada allahu alxusna abdullah ibn omar mbokk yi benn bis lays ibn saadin nee na benn waaye dafa bind abdullah ibn omar ni ko dama bëgg nga bindal ma leetar boo xam ni da nga ciy def lu bare bare bare ci xam-xam ndax man koo jëriñoo abdullah ibn omar bindal leetar ni ko inna la ilma kathir xam-xam day dafa bari ba xajul ci wufooy ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس ngallawaay boo mënee fexe ba booy dajeeg yàlla sa ndigg li na waya toll benn deretu jullit bu mu topp ci sa loos sa biir bi na nga fexe ba mu bidd benn alalu jaagur bu mu ca tàbbi sa lammiñ bi na nga fexe ba sa mbokkum jullit bul ko xeeb bul ko xebet bul ko jëw bul ko xas bul ko tuumaal na nga fexe ba jullit ñi mbooloo mañ nekk mu tege ci sunna te mooy ca nga jàpp ca bañ a beru mu ni soo ko defee sa diine mat na wasalaam ñoom seeni leetar daa mënoon di gàtt lool nay saan te bari njëriñ salman dañu woon abu darda ah kaay kaay fii nga dëkk si fii ci madi abu abu darda ma wax salman abu darda bind salman ni ko kaay fii nga dëkk madina ndax yonent bi nee na madina dëkk bu baax la dëkk bu sell la masih dajjal bu ñëwee dañuy mucc kon dëkk bi nangam wax a wax a wax ba yeggal salman al farisi ni ko gis nga dëkk du sell ba sellaaleel ñappane yow yaay sell ba yóbbaale dëkk ba yow wasalaam loolu mooy loo sell sell sell loo ñàkk ñàkk sell loo jubadi jubadi sëg jubadi boo nekkoon ci dëkk bu sell dëkk ba da lay buusu sànni yéen ci yàlla bi masiix dajaal dikkee du mën a dugg madina waaye madina day buusu saay saay si ñu génn ci biti fekk masiix dajaal man da leen di gëq boobu ñu génn ci biti abdullah ibni sabra nee na ibni omar day su musaana yeew bokk na ci lim daan ñaan mooy yow sunu borom yi woy séddale ci bis bi de yàlla nag ma boole ci ñi ciy ëppale leer booy séddale ak yërmande ak wërsëg day yàlla na nga ma ca may sama wàll waaye lor boo xamante ne yaa ngi koy wàcce de yàlla na nga ma ci musal fitna juy ñëwit yàlla nañ ci mucc ndax yàlla naa nag ma ci musal ndax wóolu ma saa bopp abdullah ibn omar nee na moytu leen àddina balaa ngeen cee jël lu ëpp ndax cër boo am ci àddina rek am na cër bu mu wàññi ci sa ci cëri alaxira yi allahu akbar waxuñu bu lu wut àddina de waaye yamal utal lu yamamaay loo xam ni day tolloog ab yóbbal mu ni cër boo am ci àddina rek yëgal ni am na cër bu mu wàññi ci sa cëri alaxira yi amar ibni maymun nee na benn bis dañoo wax abdullah ibni amar ni ko moo yëg nga ni diw faatu na mu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah loolu de yëguma ko woon nee na waxtaan bi continué ba waa ji mu ni moom de li bàyyi ci alal kenn xamut nu mu toll abdullah ibn omar ni moom moo bàyyi alal ji de waaye alal ji de bàyyiwu ko fi moom dégg nga de mu ni moom moo fi bàyyi alal ji waaye abdullah alal ji bàyyiwu ko fi gis nga de alal ji lu mu bari bari bari yaay dee ba ko fi waaye alal ji moom bu dee dee du dikk alal ji ni non bàyyi bàyyi ma dee bàyyi ma dee alal du fajjee gàcce lay faj ahankay léeg-léeg gàcce ñëw te du ko mën a faj de ndax gàcce dee dee gàcce gu mel ni dee jàpp na ne moo gën a yées ci gàcce yi su fekkee naroo baax la te alal du ko mën a faj am na nit ñoo xamante ni tey bu doon alal mooy faj seeni soxla yaakaar nañ dana faju waaye alal jooju yëpp lay saan boo faatoo fi nga koy bàyyi xubbuhu linnaas wa xirsuhu alayhim abdullah ibnu amar ku bëggoon jaamukatu yàlla la rawatina ñi nga xamante ni ñoo ragal suñu borom nee na léeg-léeg damay génn aw ma benn soxla waaye li ma tax a génn mooy bëgg a dajeeg gaay yàlla yi gis leen rek bànneexu ci seen xar kanam yi allahu akbar allahu akbar est ce que xam nga ni ku gëm yàlla dëgg dëgg dëgg boo ko xoolee da ngay bànneexu ca gis ka waxuma bànneexi àddina yii di déedéet waaye da ngay yëgaat càkk ngëm ci sa xol am na ñoo xam ni yàlla baaxee na leen ba saa boo leen gisee ñu fàttali la as lépp ci àllaaxira comme ni mu amee gaa yoo xam ni soo leen xoolee ñu fàttali la léppi àddina ndax lépp àddina lañ soxla abi amr ak ak ak ak nadd bi nee na benn bis dañoo génn ànd ak abdullah ibnu omar nee na man ma ni kii de dootuma am teeg moom moom bu dajeeg gone ko ndaw nuyu ko perantal da koy nuyu mu ne xale bu mënta wax sax day jaar dem di ko nuyu ndax nuyoo yu bari mu ne ngir yéene ñëpp yiw loolu rek laa ci jublu ne damay waññaare di xool ba xam gaa yi ku sa ngëm wàññeeku ma fàttali la képp ku am aajo ma fajal la ko képp ku soxla laahi biir ma laahi biir ma defe naa yéen a ngi fàttali ko sa aj Abdoulaye ibn Omar daana génn ngay sàn ñee ngay jaay soble fee di jaay pomme de terre fee comme commerçant yi ni ñuy def moom mu génn moom ngàbbub saakoom nga defee day jënd mu dugg ci biir marché bi jëndul dara de allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu gis nga ku mën a jàngale la est ce que seetlu ngeen ci tabaski korite léeg-léeg nit ñi dañuy nekk ci yitte yi ba dañuy fàtte zikr boobu waaye gis nga yow da ngay jëkk mu yàgg rek dégg kenn di ko wax nga ni ii man ndeke waxuma ko nga commencé di ko wax moom xam na ne nit ñi buñ ko déggee muy wax rek seen xel du nekk nekku fi naan wax leen nekku fi naan fàtte ngeen ko moom daal day romb buntu cantine yi rek allahu akbar allahu akbar léeg-léeg ku ko dégg nag sa xel dem ci rek nga commencé yow di ko def Abu Hurayra mu ne ko dooma ko dàq bu Abdoulaye Momar jaare fi Abu Hurayra jaar fële bu ko defee ñoom ñuy fàttali jullit ñi seen zikr yooyu comme ñoom kéemaani suñu borom la noonu ci jaamu suñu borom benn bis Abdullah ibn Omar abdullah ibne dinar nee na dama ànd ak abdullah ibne omar ñu dem ba ci àll bi ñu romb ab sàmm abdullah ibne omar ni ko eh sàmm kaay sàmm bi ñëw mu ni ko dama bëgg nga may ñu benn gàtt ci sa gàtt yii dañoo xiif sàmm bi ni ko ay la yéwén day yéen ko xool seen xar kanam yi xam ni ñu baax ngeen yéene naa ko torop waaye nag moom moom mu ne ko da nga ñu koy may ñu ray ko soo demee bu la sa jaatiga laajee nga ne ko tilli ga moo ko lekk fekk da ko doon seetlu de da ko doon seetlu bàyyi leen xel ci loolu tamit da ko doon seetlu mais da nga ñu koy jox boo yeggee nga ni sa jaatiga tilli gaa ko lekk jaam bi ni ko fa ayna allahu ida kon su ma koy wax loolu fan la yàlla di nekk allahu akbar abdullah ibn omar bënn ba di jooy daan ni ki ma àndal yor nga foofu xaalis mu ne ko waaw mu ne ko jox ma mbuus mu jox ko mbuus mu ne ko yow foo dëkk mu ne ko barab sàng mu ne kañ dem mu dem ba ca jaati géem ni ko jaam bi laa bëgg nga jaay ma ñu waxaale mu jënd ko mu ne ko jur gi laa bëgg nga jaay ma ñu waxaale mu jënd ko mu ne ko goreel naa la may la xar yi allahu akbar ñu ko ayna allahu idan ana yàlla kon ak am solo mbokk yi di sedd yàlla si ana yàlla ci li nga lekk na ko yomb na lool waaye la gars yi ni akalahu zikbu ci li nga lekk na yusuf xam naa sax li ñu wax doo ko gëm ñooñu dañoo xamul woon fàtte woon ayna allahu idan ana yàlla kon ak am solo mbokk mbokk yi ni ñuy bàyyi xel ana yàlla kon am na jëf yoo def am na jëf yu ma def man xam nga sa yos xam nga saa bos xam naa saa bos kenn ku ci nekk yaa ngi ni ñiig ñii daal nit ñi xamuñ la waaye su borom jaam ñu xam na la te loola nga def defu ko suñu borom ayibaloon rek ndeysaan bu la waxaloon rek sa ayib feeñ keroog ba nga koy def boo séddoon ay na loo jàpp na doo yegg si fii njàngale yi ak am solo mbokk yi moo ñu ki di bàyyi xel yàlla lii mooy muraqabatullahi azza wa jal ayna allahu idan kon ana yàlla su boobaa xool sàmm ba ca àll ba nga xam ne bu doon kaw kaw wala kii na saa ñu ne xamu dara mooy sédd ayna allahu idan jamono bi ngay jël yëpp jàmbur jamono bi ngay jëw bi nga nekkee sa biir néeg di julli gaay gis ñoo ngay këpp këppal defe ne yaa ca nekk fa ayna allahu idan ana yàlla bi ngay jël yëfi jàmbur di ko lekk ayna allahu idan bi nga toogee sa mbokkum jullit ngay jëw sa mbokkum jullit ayna allahu idan ana yàlla kaa bi ngay wax mu bir ni lii ngay wax ay kàcc la ayna allahu idan lépp loo xam ni nit kaa ngi koy def wala di ko wax rek di xalaat ayna allahu idan xoolal mbokk yi tey ndeysaan subhaana rabbil ala da ngay dugg oto benn waaye nekk fii jël tataa sa ngi xalu foo ne mu ni maa ngi biir koloban maa ngi ni xam nga li ma gën a yéem du fen bi déedéet ndax fen xamoon naa ni ñaa ngi koy def waaye li ma gën a yéem li ñu tuddee waqaaxa muy ñàkk jom goo xam ni yow yaa ngi si biir kaar nan maa ngi nii ko nga xam ni waa kaar bi yëpp xam nañu da ngay kàcc man loolu moo ma ci yéem man ana sa bàyyi mu ne ko nee ko nekku fi xale yu dégg xale yu dégg fekk yi nag ñoom maanaam xale yi am na ñu am fekk nag dañuy génn saa bàyyi nee na nekku fi am na benn image bu ma gis gars yi di ko teg ci téléphone yi suma suma baaba téléphone suma ba baaba téléphone mu ne baay ji dañ koo woo téléphone mu ne xale bi nekku nekku ma fi xale bi ni ko baay yow yaa ñu doon jàngal naan fen baaxu baaba téléphone mu ne ko nekku nekku ma fi waaye ci mujjantal gi da ko waxoon daw yaram mu ne ko antil qudwa wa antil masalul aala bàyyi xanaa xamul yaay giddi bi ci kër gi te yow yaay montagne bi ci kaw yow la ñuy teen di xool bàyyi boo nee nekkuma fi ñun buñ ko déggee nu ñuy def ndeysaan bàyyi ji rus na jàngale mango mbokk yi xale bi bu fekkee loolu nga ko tamal nee ko nekkuma fi nee ko nangam moo xam ni baayam moom li mu wax du noonu wala yaayam li mu wax du noonu moom day jàpp ne kon wax lu dul noonu noonu la gis nga de bu ko defee comme la danaa kon nee na nekk nee na nekku fi loolu moom leer na wax dëgg yàlla xale bi di wax loolu saa bàyyi nee na nekku fi moo tax tey boo xoolee li ñu tuddee waqaaxa bu ñàkk jëm gu mat sëkk ci xeeti dafa ni bàkkaar kon fa ayna allahu idan ana sun borom nit ki di ko bàyyi xel fu mu ci toll i'tizaaluhu lil imarati wal fitna sori goo xam ni abdullah ibne omar da koo sori woon imaara ak fitna ji gis nga nag ñaare ngi yoo xam ne nag
yu yu garaaw a ngi yoo xam ne Abdoulaye Noor mënoon naa mucc si yëpp ba mu des bii waaye yàlla musal na ci
Abdoulaye Abdullah doomi Amar ibn al-Khattab doomi amirul muminin bokk ci min fudala sahaba te ña yonent bi tànnoon bëgg ko sahaaba yu mag yi tànn ko bëgg ko kii xam ngeen ne yay na ci jiite julli bi waaye bëggul woon loolu ndeysaan da ngay gis mbokk mu jàmbaare ci ñun wala ayaasu billah waaye bu fitna yeeg seere mu yàqule est ce que xam nga lu garaaw la nit ki di bañ a ñaan yàlla di ba di ñaan rek te bañ a ñaan bi gis nga mbirum fitna mbokk yi bari na ñu bari ñoo xam ndeysaan bu fitna di ko yóbbu leen
bokk na ci ñaari sunna yi wa ida aradta fitnata qawmin fa tawaffani gayra maftun yow sunu war a bu fitna yegsee bu ma ca naree bokk faat ma sax ma bañ caa bokk mooma gën a ndax fitna day yàq doomu aadama
mbokk yi saxaaba yu baax ya ridwanullahi alayhim ajmain ndeysaan ñu demoon Uhud ñu demoon Badar ñu ñu yonent bi ne yéen àjjana ngeen jëm ah fitna ñëw na jaxase leen saytaane dox seen diggante ba ñoom ci seen biir ñuy tuurantey dara moo tax nee naa al fitnatul kubra moom xaw tuuti kon di ko junj di dem rek bañ ca di wax moo gën ndax dëgg la nag la ay aimatu ahli siyar ibni kathir di wax mu ni seen mbir yooyu bu ca sa yoon nekk
seytaane doxoon na seen biir yàlla jéggal na leen seen bàkkaar bàyyi leen moo tax magum salaf ma ni comme de saa jëmm ja mucc na ca ba bokku ca saa làmmiñ yi dinaa fexe ba mucc ca du ca wax lu jub noonu ak a am solo waaye Muawiya tooñ ak Muawiya daa bëggoon nguur ak ah waaye moo moo kenn àttalewu la yow boo àttee sax da nga dut am tiyaaba ndax yow doo àtte kat yow faf kenn soxlawul sax àtte
fitna yooyu mbokk yi
ndeysaan am nañu yàlla baaxee ñoo xam ne jot nañoo dem ba ca biir fitna jëf gis nga Zubayr ah Zubayr ndeysaan
dafa dem ba jib ca fitna ja nar a bokk ca fitna ja nara jàmmar Ali ibn Abi Talib Ali ni ko jàkk mu ne ko jàkk mu ne ko Zubayr yaa ngi fàttaliku bis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man ak yow danañ ma sa jote te yaa may tooñ Zubayr da ngaa fàtte loolu xanaa affaire bi mel ni aaye alquran ji doog a wàcc xam na bala moo la nekk da ko fàtte
ah mu ne xiic ngalaabu fas wi tegaat teg gi rek rëppatal tëdd dem ñibbi
allahu akbar kaanu waqafina li kitabillah saa bu ñu déggee njàngale yàlla njàngal duñu amati maîtrise nekk da ko fàtte woon mu tourné pour ñibbi
nekk ca ca lay faatoo mu dikk ba ci yoon wi mu sonn comme daa sori nekk am na ko ko topp pour bëgg ko rey ku ñuy wax ibni jar moo ko waaju bon si nga xam ne yonent bi nee na qaatilu zubayr fi naar
ka rey doomi safiya ji moom na xam ne moom sawara la jëm wa jeex mu jëm ñu guddal mu jeex mu fekk ko ba muy nelaw mu jam ko
soxnaam daa tëj ba summi mu ne ah wallaay góor gii goo xam ne ku ko rey daa fekk nga bett ko muy nelaw waaye yéen waa dëkk bi yépp xam ngeen ni kii góor du jàkkaarloo moom di ko rey
wax na ko dëgg jàmbaar la woon joo xam ni jàmbaar la woon joo xam ni
kenn du jàkkaarloo moom mukk di ko man
muy da ngeen koo fekk muy nelaw moo tax ngeen man koo rey waaye bu ngeen ko bett loon muy nelaw du ngeen ko mën a rey Abdullah ibn Umar mbokk yi moytu woon fitna yi la am na saxaaba yi ñoo xam ne saan jotoon nañ ca tàbbi waaye am na ñoo xam ne ñoom yàlla baaxee na leen ba jotuñoo tàbbi ca fitna ya Abdullah ibn Umar ku dëpp woon addina la ak njiit soxlawu ci woon dara Aasim nee na Marwaan daa ñëw ci Abdullah ibn Umar ni ko ginnaaw li Yazid faatoo mu ni ko talalal sa loxo ma jaayante yow léegi yuuxul nit ñi kaay leen jaayante kii mooy amirul mu balaa ñu fay fal keneen ndax yow yaay sangu arab yi di doomu sangu arab yi muy Omar ibn al-Khattab
Abdullah ibn Omar ne ko waa boo jaayanteeg man ba nag waa masriq nu may defal ñoom
mu ne xanaa ñu bocc suñu jaasi yi rek ku def naka su dul noonu rek ñu yóbbu ko àllaaxira mu ni maa ngi muslu ci yàlla ma falu nguur boo xam ne juróom-ñaar fukki at laa tey am waaye daa fekk benn jullit la ñu rey ma doo ko fal loolu maa ngi musul ci yàlla
allahu akbar
gis nga de mu sori fitna yi yi amoon diggante Muawiya ak Ali te xam ngeen fitna yooyu nettali woon naa ko ay yoon fitna yu métti woon la ndeysaan ak réeroo rek la woon nag diggante Ali ak Muawiya yëf ya dem ba ay xeexoo am ca yoo xam ne ay nangami nangami julit faatu nañ ca moom la ñuy wax mawqaatu safayn wala moom dajeeg Aïcha moom Ali moom la ñuy wax ma ma maarakatul jamal bu mu ca man ci doon ay junni junni julit ñoo ca faatu ñii di ay saxaaba ñii di ay taabi'un waaye nag loola moom seen mbir la woon sunu borom jéggal na leen ko loolu la ahlu sunnati wal jamaa dëppoo Abdullah ibn Omar moom pour daw fitna même bu ma saana romb xawaarij yi bu ñee xaya ala sala di julli mu ne damay dem julli sa ñoom ñu ne ko lu tax mu ne man de ku ni ma xaya ala sala ajabtuhu dinaa ko wuyu ndax danga maa woo ci julli gi waaye xaya ala xatmi aqiika kat nag moom wa axzi maalihi fala kaay ñu rey sa mbokkum julli wala kaay ñu jël alalam moom mu ne bu ma ca kenn woo ndax loolu du ma sa mbokk ku yàlla mayoon xëyba la nag xam ngeen luy xëyba mooy wegeel ñépp a ko respecté woon xam nga dafa am nit ñoo xam ni yàlla dafay def nit ñi dañ leen a mel ni ku leen ragal fekk du ragal dañ leen a wekk ndax yàlla moo def seen jëmm ñu nekk jëmm yoo xam ni xëy na borom bi defal na leen tawfiq yi xëy ba loolu suñu borom mayoon Abdullah ibn Abbas moom la mayoon Omar ibn Khattab ak ila axirihi ku xéeroon la moom Abdullah ibn Omar ci julli ñi lañ nekk benn bañ ñu teqalikoo benn bis nee na damaa dugg ci Xafsa di magam fekk ko muy peñe kawaram ndax mooy soxna yonent bi di magam mu ni ko ah nit ñi da nga ña nga ca biti di waxtaan tee ngaa génn mooy jamono bi ñuy waxtaan ci diggante ali ak abu musa al ashari ak diggante muawiya ak amr ibn al as seen digg dialogue boobu amoon nee na bi loolu amee ñu daal di génn nee na ma daal di ñëw fekk mbooloo mi bañ toogee muawiya daal di xutba nee na muawiya daal di jóg xutba xutba ji gudd bokk na ca la mu wax ci xutba ja mu ni képp koo xamee da ngaa bëgg a wax ci suñu mbir mii ñëwal nga wax ci laa wax te ku ciy wax nag xam ni ñoo ko gën a sañ ci mbir mi ñoo gën a sañ bàyyam ci mbir mi borom xam-xam yi ñu ni boobu Muawiya Abdullah ibn Umar la doon waxal xam nga rek boobu ndeysaan ay waxante am na yoo xam ne leen ni day wax bay wax lu mu war a wax Habib ibn Maslama ni ko fa hal laa ajabtahu waaye yow da laa gën ba di la wax loolu doo jug nga tontu xam nga gars yi ci léeg dañuy suq nag gis nga léeg-léeg gis nga waa ji jàmbaar loolu waaye gis nga li war a naan buuru aay waaye daj yaa aay est ce que xam ngeen ne léeg-léeg nit def dara fekk dañ ko kaa def loo gis nga bu la yàlla na toog dafa nata suuf mooy ñi la dar baaxuñu doo liggéey lu baax ay baal ko xudi la ko baal ko ah kii bu ko toog waaye am na ñoo xam ne waaye mënoo ko woon a tontu mu ne man de xam naa ne bu ma jugoon tontu ko danaa ko tontu tontu bu saf saf boo xam ne dootuma ko waxati ndax moom xam na ma xam naa waaye nag maa ngi tiit ma jóg tontu ko nit ñi di farfarloo jëm ci sama kaw ba songoo am fi ñuy xeex te loolu laay bañ te boobu ba léegi maa ngi daw ñu tuur der ci mbokkum julit fekk man maa tax ma fàttaliku xéewale yàlla yi amay àjjana ma ne naa ca am rek man doy na ma xas yu baax na kon mbokk yi Abdullah ibnu Omar ndeysaan ay fas yu bari dikkal na ko muy daw jàpp naa ni jamono ba nga xamante ni Ousmane nee na ko kaay ñu fal la nga nekk qaadi di àtt te mu yey ci lool nga ne ko merci kaay ñu jox la Saam Ali moo ko wax nga ne ko merci doy na baax na lii daal mooy lii suñu borom di wax allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib nekk suñu borom daal mooy tànn nit ba lépp na ci puukare àddina yi du ko bëgg te xam ngeen ne Abdullah ibn Omar mbokk yi fa gaa yi doon sëmbax loolu yor imaara gi di jiite xam ngeen ne waay waay buñ demee ba xajjaaj di jiite nag moo lay wan ne xam nga ni Abdullah ibn Omar comme nga naa jiite bu yàgg waay waaye bëgg ci dara radiallahu anhu wa arda nii la Abdullah ibn Omar dundee ndeysaan ba ci mujjantalu dundam mu nekk koo xam ne ab jàngalekat la woon ab sëriñ daara la woon ab jaamukatu yàlla la woon ku dëddu àddina la liggéeykat la tey bokkam moo ko jël tam li mu doon liggéey benn bis xajaaj ibne yusuf danaa xajaaj moom dégg ngeen ko mooy saa waaju day waa jooju xam ni moom daanaka li def ci ay jaaxuma ki giraawaali mu bari na lool waaye nag buñ ko atte de xajaaj bàyyi nañ ko yàlla la ko dégg gars yi nag way xajaaj dafa lii dafa laa ma ni déet yàlla bu ko kenn atteel jàmm xajaaj lim def kenn mënu laa wax njaaxum yi ni mu toll lim rey ci ay jullit ah ba ki mujjee rey mooy ay seen xel yi da ngeen a reer reeragut
kan la xajaaj mu jeeray
déere ah gars yi seen xel yi dañuy nelaw xanaa yéen fu ngeen nekk
ah
saïd ibn jubair saïd ibn jubair la mu jeeray mu ne ko yow yaay saqi ibn jubair ku torox ci doomu jubair xajaaj ku ñàkkoonu yar la rek Saïd ibn Jubayr ak ni mu nekkee woon borom xam-xam nga xam ne àggoon na gis nga yaayam dañu ko woon Saïd mu ne naam mu ne ko Saïd bu ma la déggatee nga ñaan lu bon ci dara maa ngi yow dinañ ko digaale ku nangu woon ñaan la ginaar gi nekkoon ci biir këram doon ko sabal par fajar daa bañ a sax mu biddanti mu yeewu ni ko yow yàlla na sa baat bi dagg ginaar gi mënatu la sabal yaay ji ne ko ba ma déggati nga ñaanatu dara saa xool ko fi mu toll mu ne ko yow yaay saqi doomi jubayr ku ku torox ci doomi jubayr mu ne ko sama baay moo la gën a xam tur woowu ma tuddee ci yow
mu ne ko yow man sama nguur gi neex na la wala neexu la mu ne ko sa nguur gi neexuma
mu ne ko waajal dama lay rey
mu ne ko seetal façon rey ban nga bëgg ma rey la ko xoola xajaaj xajaaj mu ne ko xoolal ban façon rey bu neex nga bëgg ma reyee la ko mu ne ko yow tànnal façon rey bu la neex nga reyee ma ko te nga xam ni bu ko gën a bon la la suñu borom di rey
mu ni ñu ni ko rey mu ni jublul leen ma xibla ab mu ni xaaral ma jublu xibla a gaaw mu ni wëlbati leen kanam bu mu jublu qibla ndax rek pour xorñañal ko mu ne ko fa aynama takunu fa tamma wajhullah même bu dul qibla foo jublu foofa la yàlla ne
mu ne kubbuhu ala al ard dëpp leen ko ci suuf si dóoral ma dóoral ma baat mu ne yow yàlla xam naa ne maa ngi faatu mën na maa faatu waaye nag maa ngi lay ñaan moom na fitna ji yem fii tey gis nga bi mu reyee Saïd ibn Jubayr la lampam fay dafa rey saayit rek feebar dikkal ko bu métti sax muy tëdd di bitar ñi kuy wéqu mel ni nag wu ñuy rey te seddagul di yuuxu di woo maali wali saayit ibn jubayr man lu ma jot ak saayit lan lan laa def saayit di yuuxu di wax mu ni sama benn wet gi dafa paralysé ba boo jëloon ay rab di ko jam du ma ko yëg di yuuxu comme ni nag wuy rey wu ñuy rey te seddagul di yuuxu ba nim faatoo kon ñaanug waa ji moom nagu la moo tax yaayam ne ko woon bul ñaanati mu rey mu faatu gis nga de waaye xajaaj li gën a yéeme ci ay mbiram mooy daawul bokkaale yàlla loolu da jaaxal na ma ci ay yëf te xam ngeen àjjana nag moom yàlla yaa yaa biir ma ne de bi muy faatu mu xam ni def na ci ay giraawaay loo xam ni toll na ni innama mu xool xool xam ni dee ñëw na mu ni yow yàlla man xam naa ne saay saay la ku bon la man xam naa ne ku bon la waaye yàlla adduna bi yëpp dëppoo nañ ci ni yow yàlla doo ma yërëm gis nga yàlla maa ngi lay ñaan nga juyox nit ñi rek yërëm ndax ñëpp nee nañ doo ma yërëm kon boo ma yërëmee rek di nga bett ñëpp wax jooju mbokki daa daw yaram de dafa garaaw de mu ni yàlla ñëpp nee nañ doo ma yërëm maa ngi lay ñaan nga juuyoog nit ñi boo ma yërëmee ñëpp ngay bett yow yàlla ah man daal wax dëgg yàlla bu ma liiree dundam ba yegg si te waxam jooja nag moom damay daal di daal di daal dem daal dootoo xamante looy wax def na ci ay giraawaay lu bare bare bare waaye waxam ji daa daw yaram trop te xam ngeen yàlla nag subhanahu wa taala moom inna rabbaka la zu maghfiratin ala nnaas daal moo xam ka muy jéggal ak kam dul jéggal te it bul fàtte ni jàngkatu alquran bu mag la woon nag tomb yii ngay gis ci alquran sax nag ñu naan faa benn tomb la xaaf ñaar gayin benn ayin du am xaa bu oyof xa moom moo ko def ci alquran ku liggéeyal alquran la rek moom daal daal dama man nag man sama sama àtte bopp man dama ne wa aqaruna yactarafu bi dunubihim xalaqu amalan saalixan wa aqara sayi'a mu ne asa allahu an yatuba alayhim gis nga de man de wax dëgg yàlla foofu laa ko kal noppi am na ñoo xam ne i'tarafu bi zunubihim reconnaître nañ seen liñ def ci ay ñaawteef jaxate nañ ay jëf yu baax ak ay jëf yu bon amaana yàlla baal leen wala mu mbugal leen amaana nag amaana yàlla mu ko bàyyi ka ko wax muy sunu borom abdullah ibnu amar radiallahu anhu ayo naa ahan kay abdullah ibni abbas benn waaye laaj na ko ni ko sunu borom wax ji mu wax ni ku faat benn bakkan fa jazaauhu jahannam biñ ko laajee ndax est ce que dees na tuubal ray bakkan wala déet moom dañu déet ray bakkan kenn du ko tuubal boo ko tuubalee yàlla du ko nangu ngir aaya jooju waaye li ëpp ci borom xam-xam yi dañ ni lam ca namm ndax sunu borom bépp bakkaar bu dul bokkaale yàlla mi ngi ci ron bokkaale wa yagfiru ma duna dalik la sunu borom wax ndax aaya yi dafa am ay umumaat ak xusuusiyaat sunu borom dana jéggale lu ne lu ne ba mu des bokkaale te rey bakkan donte suñu borom wax na ci ne bokkaale ci suufam la nekk moo tax borom xam-xam yi ñu ne la tax abdullah ibne abbas ni amulu tuub mooy bakkan daa foor foor boo xam ne buñ àggee ba suñu borom di la ko fayeeku lu toll ni lan ko nar a fayee est ce que bu génnee ci say tiyaaba di nga dese loo duggee àjjana te déggin boobu wér la maanaam daa bëgg a wax ni lu toll noonu buñ ko génnee ci say tiyaaba est ce que da nga dese loo tàbbi àjjana mu ne kon amul ak tuub ànd ak nag ahlu sunnati wal jamaa seen aqida mooy rey bakkan ak lu dul rey bakkan ci yam lu mën a doon ci ay bakkaar maadaama annahu duna shirk rek nit ki sunu borom mën na ko caa mbugal mën na ko caa baal loolu mooy pas-pas ak ahlu sunnati wal jamaa abdullah ibnu omar radiallahu anhu benn bis xajjaaj dafa taxaw di xutba xajjaaj yi di xutba bam yàgg abdullah ibn omar mi ñëpp képp jug fekk booba màggat la xam ngeen moo ko man mu ne ko xajjaaj ragalal yàlla dëkk bi ñu ngi fiy tuur deret te dëkk bu ñu ormaal la muy kaaba gi xajjaaj ragalal yàlla kaaba gi ñu ngi koy toroxal te néegam suñ borom la xajjaaj moytul li nga nekkee mu ne ko yee yow góor gu pënëx bi tëjal sa gémmiñ gi laa wax ku ñàkkoonub yàlla la ndax lii kenn du ko wax ab saxaaba te xajjaaj du saxaaba bi mu waxee loolu mu daal di wax benn bëkk néegam ni ko yee yaral ma ko ne allahu akbar bëkk néeg bi dégg ndigal lool génn benn fett boo xam ni cat yi dañ koo posene posene mu jam ko ko ci pooj jam ko abdoulaye ibne amar ci pooj jam-jam boobu ndeysaan moom la feebar ay fan ba ca la jaare faatu kon de xanaa kon dañ naan moom bokk na ci ak wàllam jël na wàllam ci abdoulaye ibne amar benn bis ndeysaan xajjaaj dem dem ba xam ni def na giraawal def na njaaxul te xam ngeen ne xajjaaj dafa ragaloon abdullah ibn amar da koo ragaloon de da koo ragaloon amul layoon da koo ragaloon abdullah ibn zubayr xajjaaj ko rey te xool abdullah ibn zubayr ku ko jur asma ndeysaan abdullah ibn zubayr mu rey abdullah ibn zubayr ba noppi au lieu que mu gas ko suul déedéet mu dem ba ca digg penc ma taxawal benn bant tàndar ma pendre ko mu ne ko duma la suul fii laa lay bàyyi ah ba ñëpp xam ni maa la rek allahu akbar yemu ci dem ca safiya ca ca asma booba asma am na téeméeri at mi ngi silma mu naa ko yow sama yaay mu ne ko su booxul ma la yàlla na ma yàlla musal ci yow man kay ka nga pendre laa jur waaye juruma la waaye bàyyi naa la ak yàlla xajaaj buy xutba danaan ki gën a bon ci xeet wi rey naa ko muy abdullah ibn zubayr muy ki njëkk a judd ci jullit ñi biñ demee madina abdullah ibn omar ñëw ba tiim ko xool ko mu ne ko waxoon naa la lii lépp fekk mi ngi paas de waaye da doon wax noonu rek xam nga lu tax abdullah ibn omar def loolu ndax gaa yi kenn ñi mu wucee wax ndax lu waay wax rek ah enregistreur yi daal di ko yët xajaaj am na gaa yoo xam ne ay ay portable ak dañuy enregistré de loo wax ci dëkk bi rek ñu ko xajaaj loolu tax dara du gaaw Abdoulaye ibn Omar xam ni kon bu waxee dina jàll mu ñëw ni ko Abdoulaye ibn Zubayr fekk mi ngi taxaw xam ne ki muy waxal deex waaye comme wax dina jàll mu ne ko lii lépp waxoon naa la newoon naa la moytul xajaaj waaye nag askan woo xam ne yaa ca gën a bon yàlla na ma yàlla boole ca askan woo bëgg naa caa bokk maanaam da doon gaa rawaale da ko doon wax daa bëgg bëgg léegi gaa yi daw yóbbul ko ko te effectivement àgg na waaye du ñu ne ñëpp wax ak Abdullah ibn Omar da ko ragaloon noonu ndeysaan xajjaaj ñëw di ko seet si mu nuyu ko salaamaaleykum wa rahmatullah Abdullah ibn Omar fayu mbokk yi ku xam Abdullah ibn Omar ak ni mu xéree woon ci nuyoo ak ni mu jàppee woon jullit yi ku dem ba ne ko salaamaaleykum fayu la ah am na lu xew benn bis benn waay ñëw na di ko seet si ne ko waaw abdoulaye ibn omar lu xew mu ne ko ki digle ñu yore ay jaasee ki xeej ca fa yàlla tere ñu yore ko fa moo ma feebar la xam nga biir kaaba gi ay jaasee ki xeej ak yooyu ay arme dañuy tere nga yore ko fa mu ni ka nga xamante ni moo digle nañ ko fa yore muy xajjaaj kookaa sabab sama feebar bii kon daa jaar ci la yàlla tere pour feebar loo ma saïd ibnu jubayr nee na abdoulaye ibnu omar bi mu day sukkaraat ndeysaan ñu laaj ko ñu ko fi mu nekk nii lan mooy say réewe ci àddina ndeysaan ni day jóg naa man bëgg naa lii bëgg naa lii bëgg naa dëkk fii bëgg naa tàkk soxna si bëgg naa nangam di réewe rek waaye boo tolloo ci sukkaraat tey ndeysaan doo réewe dara abdoulaye ibnu omar bi ñu ko laajee lan ngay réewe lan nga bëgg mu ni man de wax dëgg yàlla maa ngi jóge ci àddina waaye maa ngi fiy bàyyi ñett yoo xam ne neex nañ ma ma bëgguma woon a faat mu ne xanaa bëccëg gi tàng jër ma yendoo woor guddi gi gudd lool ma fanaanee naati la ah mu ni loolu day bëgg naa ko lool noonu la continuer ndeysaan daal di sukuraat ba borom bi subhanahu wa taala jël ak ruuxam رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كن فوق لن يتخو تي دند عبد الله بن عمر ميمو درس بي مج إن شاء الله غير نو أريت بندي با وير كور يكسينا خم جاني تاي جي نيغي اي فان تي وير شعبان waxtu bi buñ ci mësaana toll dañuy arrêté bind yi comme ni ngeen ko xamee salafu saalax seen doxalin ci seen dund mooy bu weeru koor mësaana dikk mboolem activité yi day jël congé ba mu des alquran alquran rek lañ dul nangu mu jël congé ndax mooy shahrul quran muy ramadan ci di ko jàng ci di ko nafar ci di ko setantal ci di ko tafsir ila axiri kon insha allah bind bi mooy nekk bind bu mujj ci ñaareelu xaaj bi ci dundu amar ibn abdullah ibn amar ñu arrêté ne bind bi ba koor gi yegsi bu fekkee benn téq-téq amul suñu borom def ñu fekkee ko insha allah comme niñ ko doon defee weer koor gi yépp dinañ koy tafsir ci jàkk ji benn soppeeku rek moo ci am mooy waxtu wi ci boppam dañ koy wàcce wàcce gi mooy fi mu ne ñu ngi julli ay une heure et demie daanaka kon une heure mooy deux heures mooy dix deux heures mooy dix bu fekkee waxtu bi soppeeku ci jamono jooju gën a jege day fekk kon ñu julli tisbaar ba noppi kon deux heures mooy dix ci la ñuy tàmbali trois heures dars yi jeex am soppeeku boobu rek moo ci am way la programme bi ñu doon yor ci tafsir nam doon continuer noonu lay continuer ñu ngi yemoon ci safaat safaat la ñuy continuer jëm naas beneen bi ci des bu ñu fàttalikoo bi ñu tollee fii daaw am na benn bunt bu ñu tijji woon boo xam ne ay fàttali la ci naka la ñuy waajalee weeru koor fàttali yooyu bu ngi nekkoon ci manazilu saairina ila allah muy escalier yi nga xam ne moom la ñi bëgg a yegg fa seen borom am ci cër di jaar ba mën a góorgóorlu xëy na yeggul woon noonu la ko suñu borom dogalee yeneen a ngi taxaw yoo xam ne jàpp nañu war a si te mën a def fàttali moo tax insha allah ni ko tàmbalee bu bisab tey bii jàllee bis yii di ñëw ba keroog koor gi di yegsi bu fekkee amuñ ci benn ngant bis bu nekk ginnaaw timis am nañ ci daje boo xam ni fukki minute ak juróom wala fukki minute dana ko mat ñu ngi koy def sufunul abrar ila diyaari sufunul axyaar ila diyaaril abrar muy gaal yi nga xam ni ñu baax ni moom la ñuy war di ko joow ngir mën a yegg ci kër gaa yu baax yi muy àjjana loola nag xaw tuuti kon ñu rok bu daaw ba waaye leen wuutale mooy bii ci wàllu defaru la ak jikko ak nit ki mën a fexe ba nekk koo xamante ni rabbaani yi lay doon comme ni ko suñu borom ndax kunu rabbaani yiin bi ma kuntum tuallimuna alkitaba wa bi ma kuntum tadrusuun nu ngi ñaan suñu borom bi asmaihi alxusna wa sifatihi al ula daje yii ñuy daje di ko sàkkoo xam-xam yàlla na suñu borom def ko mu nekk daje leer ci suñuy dënd li nga xam ne am nañ ko ci ay rëcc rëcc ki téq téq yan tay ak yin tayut yi nu xam ak yi nu xamut dal nañ ko suñu borom jéggal baal na ko liñ jot a am ci yiw mu néew lool te amaana sax sell nga taxut koo demee noonu yàlla na borom bi yërëm nu nangul nu ko yàlla na yàlla def jataay yi mu nekk jataay yoo xam ni dañ koy boole ci jataay yi ñuy lim ay waxtoom di ko taxañ ci la nga xamante ni moom mooy sunu mawasinu xasanaat koor gi ñu dëgmal nu ngi ñaan suñu borom yàlla yàlla defal ñu tawfiq ba lépp loo xam ne nekk na ci weeru koor ci aw yiw yàlla na ko maan yàlla na borom sa tala sàmm nu ba lenn loo xam ne moo ñuy xañ barke koor suñu borom musal nu ca loola te it boole ñu ci ñi nga xamante ni dañuy màng bisab laylatul qadar akub guddeem wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain